waaw waaw Pape waxal xaw fu ma jëm ak soppey Coura Macky neexul ew eh, Assalamualaikum bokku julit yi ma ngi len di nuyu di len ziyara di len wax juma mubarak ñaanal na len ñaanal na sénégalais yi yalla defal len jam daa di koy wasaare ci adina bepp la wax waaw kay di ñew nak di ñaanal sunu kilifa dina yek yu aada di len wax ni yalla na yàlla yokk fan ñu fekkee ko ñoom it ñu ñaanal ñu daal di ñëw di ñaanal son excellence ki waral coow li lépp ki sénégalais yëpp joxoñ moom la fa yàlla teg mooy président Macky Sall son excellence salut waaw kay di ñëw na Koura Macky di leen yëgalaat bu baax ni leen une semaine ci des ci kàttanu yàlla dara yàggut ma ni dara yàggut waa ba ñuy wax lii def na léegi at une semaine ci des ñu ciy woowaat sénégalais yëpp ni leen dama leen di joxoñ yéen ñëpp ni leen yéen yéen a wax ni xale yooyu ci mbedd mi daf ñu metti naqari ñu ñu yërëm leen te président bu ñëw daal di dem xam nga lu tax boko laale ñu ne laal nga l'islam l'islam amul lu bon barki yonti yalla mohammed l'islam amul ku yelwaan sénégalais nak pour ñu dox ci suñu mayin dafa gaaw mais yalla defal nañu lo xamni moy lo bëgg xam ci adina demal YouTube wa YouTube lañu yalla bolel di yegal ñep nak ni len yalla dogal na ni next ajjuma yëf yi commencé happen ci kattanu yàlla di leen woo nag <laughs> ay waay sénégalais yi <laughs> ah xamee naa leen yéen ñëpp ku ci ñëwul rek am nga ak man affaire sénégalais yéen laa wax <laughs> ku ñëwul xamee naa leen te defe naa ne xamee ngeen ma yéen it di wax ni ngeen ubbi seen bët yi ngeen xool life is moving on ñi ma gis ci làng gi ay bandi cerveau lañu barke yonent bi li may wax bandi cerveau mooy dinañu dox ci maynu sénégalais lañu ñu bëgg a dox après ndeysaan ñu ne bu ñu yëgoon lu tax ñun sénégalais yi ñu bëgg bu ñu yëgoon yàlla def na li muy def nag nee naa leen doon président yi yombut te ñëpp a ko bëgg a doon nag ñiy nekk ci làng gi yëpp ñoo ko bëgg a doon waaye que bu ñu ko doonee senegal dina mu fowóot wax ji bari na de kenn convaincre ma barke yonent bi mani di jëf te ni tekk laa bëgg ñi taxaw ci langue politique yi yëpp ay ñoom ay Idrissa Seck mi xàmmeewul bàkk ak bàkka Sonko yu too violent Sonko yéen da ngeen bëgg a jël réew mi ba pare bëgg a bëgg a indi ay ay yu kenn xamul ci àddina cencal sa weey Sonko Malick Gakou dafa naagu actuellement nii gisoon naa fi ñu ñu ko gën a naagu barki rasulilah toog ak naa ñoo xamante ne ni dañ doon bëgg nekk président waatal ma ni ñoom ñooy nekk second président of Sénégal man yi ñuy lakk nii yëpp xam naa ban ban kàllaama la sénégalais yi ñi nax lañu wara arrêté di dem ci ci village yi di leen gëm lo lo xamni bës bu ñu toogee duñ leen sax tek bëtt xam nañu mani sénégalais yi nañ leen joxaat président Macky Sall deux euh, deuxième mandat mu yeggale liggéeyam fo dem ci adina amna na deuxième mandat opposition bi bugguñu ludul jaxase sunu xel pour ne réew mi pour torturer ñu te defe naa ni yeewu nañu léegi bu ñu ko déggowul ci sunu biir nañ leen di seetaan YouTube lu ne ci am ci àddina du senegal rek ngay xool dangay xool fépp ci Afrique nga xool nu ñuy dundee a nga xool ni Sénégalais di dundee ndax ñun xiif nañu da ngeen dégg àddina bi warngal képp ñu ne dañuy dimbali Sénégal ndax dañu xiif ñun ñoo bëgg a xiif waaye dinaa wax waa senegal benn baat ma ne leen xam nga ñan ñoo xiif immigré yi barki yonent bi immigré yi ñoo xiif bu ñu jógee 6 heures du balaa ñoo duggaat seen kër benn lekk la ñuy lekk ñooñu ñoo xiif Sénégal xiifu leen amul fenn ci adina bi bu ñu taxawee si yeneen télé bi gëna mag ci adina ni nañ leen bégal Sénégal dañu xif bàyyi leen ñu leen di duggal seen bop li amul xam nga lan la sénégalais yi ñoo dañu strong sénégalais yi mën nan lu ne bu nu ñaanal suñu bop xif ak tumaranke ña nga genn di dox taxaw fu nu neex wax duma ngi ni légui joggé aljuma rek taxaw ni di wax luma neex Demokrasi moo koy maye de ko ku mel yaya jamé sunu wa kër dee nañu yag na ma ni sénégal a ci jam sénégalais yi ham ma xam ma di wax lo xamni ni ni len denc len vidéo dara du fi rir bo len ko dencul mi ngi youtube bëgguma ben sénégalais taxaw ëlëk ni suñu yegoon may len président Macky Sall deuxième tour mu yegali te balaa ñoo joxaat keneen réew mi il faut ñu xam yow la kan dañuy dem wuti seen alal ñëw tuuf ko sénégalais yi xoolal xëpp ko ñu nangu fal leen après ñu nekk di jooy nañ leen xool bu baax li ñuy def life is moving on nekk ñu ci benn dëgg doomu Jean Paul Dias bi nag du ma tàyyi ci di wax ak moom bi Dias néga xam nga sa àddina dafa bëgg a creepy gis nga man sumay bëgg nit dama lay bëgg ci ta ba ci baram waye nga tok ci taatu garab ni ngay dag reen yi ni ga président Macky Sall deful la len budul li nga bëgg moy xëc place bu kawé nga tok fa doomu Barthélé doomu Jean Paul Diaz bi dama ni la won kérok ci Dakar Actu ni la sa papa Jean Paul Diaz da fi jitu Barthélé bi yow mako ñu ñun fekkee nañu safa papa ba muy disrespect nit ñi di wax lu ne ah sénégalais dama bëgg ngeen yewu lu tax doomu politicien yu bari sen papa yi bu ñu waxe lu leen neex noot ñu après dañuy saxalaat sen doom yi yéen sénégalais yi ngeen koy nangu waaye Bartali bi xam na ni sénégalais yam ful la ba mu saagee suñu justice bi gis ngeen benn sénégalais bu dox naan Bartali bi lay marsal comme la la ko daloon ci ablay Wade ni da nga am kilifa te Bartali bi kilifa you so disrespectful negro stop it man la Bartali bi jazz yow la Bartali Dias doomu Jean Paul jazz ñoo den don keur baaw baap defu len len lu dul saraxé aljuma bu jot ana monument bi Bartali bi ba nga ci gouvernement bi bu Macky bu Macky Sall bu ablay wad mani Bartali bi lo def senegal budul attaquer nit ñi rek tekkiwul mécanicien yor seen place di ko fa teg Barthélemy attaqué nga président xam nga lan la ñun comprendre nañ la nekro da nga war da nga bëgg place bu gëna hay bo nga bëgg kon bul nu saga teye rek Macky Sall du sa morom rek boo disrespect ñu lay disrespect ndax yow dañ la xamé xamé Jean Paul Diaz Negro you know what stop it stop disrespecting people yow ak tunkara mu ñàkk jom yéen a yem mais moom am lu ya ko doy 8500 jamur yamul leb te bañ ko fay tunkara fay ko te dem faj sa tànk te noppi ngir yalla yonent bi ne leen boo leen bëggee Sénégal xam ngeen di def ñew ci li ñuy defal xalé yi do len ko def do len ko def mani dar rek élection bi waaw nek ben say rek warek rek ci benn tour yow mi dima seetaan nel amin Macky Sall gagné ci premier tour wax ji jeex man Coura Macky lii la bëgg de ma ngi leen di woo nag inshallah le 19 waa octobre ajuma bi di ñëw le 20 le 21 fii lay ci kattanu yàlla pour xale yooyu nekk ci sunu ñu jàppale leen waaw waa jàppale leen rek te yàlla tax laawu bur bi ci lool laa ne bu jeexee ngeen xam ni may politicien bi gën a aay ci àddina ba mu jeex danaa jàkkaarloog yéen yow Sonko Idrissa Seck yéen élection yéen laay jàkkaarlool bilaay walaay maa ngi leen di xaar ba liy jeex ak jàmm ci kàttanu yàlla maa ngi leen di invité yéen ñëpp yàlla defal ñu jàmm wàccee Sénégal jàmm taska ci àddina bépp ku ne am salut